moo Gassama maa ngi lay nuyu. Ah, maa ngi lay fay soxna si. sa xel màcc ci lépp lu jëm ci wàllum ah, koom-koom ñu gis ni ah, ginnaaw càmbar gi nga xamante ne Moody's def na ko Ousmane sunko moom ci boppam moo ngi valoriser nag Sénégal di wax sax ni boo moytul développement wu Sénégal soxlawul sax ñuy dépendre ci ab financement international ana nan nga jàngatee ay kàddu élimaanu jëriñ. waaw jërëjëf Moody's moom agence notation la bu am bu am américaine bu ñuy agence notation nag agence yoo xamante ne bii ñoom dañuy attribuer ay note ci réew yi en fonction de fu seen koom-koom réew toll fu seen bor bi toll fu seen recette toll seen i dépense et cetera ak jàmm ci réew mi yooyu yëpp buñ ko boole tënk ko jéem a xool ndax réew moom mu wër naa dema mu wërta dem hmm. euh, ndax boo fa dugal sa ndax duñ ko mën teel a jotam déet et cetera yooyu yëpp la ñu boole daal après dinañ attribuer note Sénégal nag note bi ñu ko joxoon dañ ko wàññi euh, dañ ko wàññi c'est vrai ndax jàpp nañ ni xëy na yenn information yu gouvernement doon joxe la mais boo gëstoo ba ci biir da ngay gis ne euh, cadre macroéconomique bi nga xamante bi ak décision yi fi jël yëpp ci diggante deux mille dix neuf ak deux tax ñu ak si fii donc de des finances et budget loolu la te loolu aussi je pense que mën nañ ko ko nangul hmm. euh, léegi nag li premier ministre wax Euh, du neex a wedd pour la seule et simple raison que depuis ñu am indépendance ba léegi mën na ëpp na juróom benn fukki at euh, koppar bitim réew mi ngi fiy dugg te réewu ñoo te réewut ñun suñu réew bokk na ci réew yi gën a dool ci àddina bi waaw bu njëkk tey bu doon lool lu amoon njëriñ la lool jàpp nañ ne war nañu defaat suñu tool foofu voilà mais nga jàpp ne également amul benn réew boo xamante bi mën a dama bokk moom kese toujours war na lëkkaloo ak ñeneen ñi ci mbirum science ci mbirum euh, coopération yenn ci ci ci ci développement local ci mbirum euh, koppar ci mbirum liggéey ci leneen ak leneen ba ci li ñuy wax benchmarking maanaam tey yow kat hmm, ci domaine bi gis naa ne li ñu ci doxalee baax na xaar ma ñëw yoon sama nit ñu jàngat ni ko doxalee ndax ma defe noonu aussi voilà loolu yëpp day tax di gën a baral jéego bi mm-hmm. voilà ah, donc yëpp mm-hmm. boo ko gisee daal da xam ne kon li mu wax am na solo mm-hmm. alors yow nan nga jàngatee tey euh, notu euh, note économique Sénégal bi ñu wàññi. Euh, waaw déjà loolu ñun nekkutoon loo xam ne lu ñu bett la parce que bi gouvernement bi defee seen conférence de presse bi te premier ministre jiite woon ko. Hmm. ci jour boobu rek waxtaan nañ seen naataango xamaloon na ne carrément que marché yi ñoom dañoo sensible ci information trop ba nga tax ba tax na ni. dans les jour à venir bu ñu bett bu dente ne gis na ne par exemple euh, obligation Sénégal yi seen seen jëb wàññeeku na wala leneen ak yeneen parce que marché moo doxalee noonu wante am na leneen loo xamante ci biir aussi mën nga ko jàppale mooy ne euh, marché li Sénégal doxalee dafa nekk principe fondamental ci marché mooy li ñuy wax transparence maanaam bëgg lu leer hmm. ndax bu dente ne marché moom dala naan transparence maanaam information parfaite ah waroo am dara looy nëbbu ñëpp ñoo xamante ni ñu ci marché bi ñoo war a yem niveau information maanaam yow muy concerne ak nga xam ne seen mbir intéresse na ko la nga yor ca information kooku aussi moom la mën a yor mu apprécier waxoon ba xam yéen koy présente doy na kom doyu ko te loolu nag ci logique boobu la ñàkk moo tax même bu nante début bi gis nañ ne eh, jafe-jafe ndaw am na après eh, dafay dafay corrigé wu waat encore parce que démarche boobu mooy li nga xamante ni képp kuy jëf jokkaloog rek loolu nga bëgg mu lay wax dëgg nga la wax lu leer. Mm-hmm. alors mu mel ni Ousmane Sonko sax moom assumé na sortiom ne daal wax dëgg askan wi loolu euh, mooy li gën euh, ngir image wu euh, Sénégal. waaw kooku aussi par point de vue boo xamante bi partagé naa ko ak moom parce que ay nit. mun la ji wóola ba jiital la ngor mayu la nga leen wax loo xamante ni du dëgg waaye également bu dee am nga say nawle ci ci biir Afrique ak ci bitim réew biti eh, àdduna bi yëpp bu dee jokkaloo aussi je pense que pour la eh, pour image Sénégal waroo wax loo xamante ni amul hmm. moo tax nu mu métti métti il faut toujours ngay wax dëgg te waxuma dara sax mais bu dente ne yow yaa ngi travail yaa ngi liggéey ci ay chiffres yoo xamante ni baaxuñu lépp looy projeté di ko planifier dans le temps da nga koy def par rapport ak chiffres yore te xam nga ne wër na la wër yàlla chiffres yi baaxul donc forcément li ngay projeté aussi mën na am na sooxane mën na am na jafe-jafe waaw moo tax li rek toujours mooy ngay dem ci base au chiffres baax parce que kooku boo ko defee dina permettre politique publique yi ngay définir vraiment mu gën a efficace voilà bu loolu da nga joŋante ba sonn mais euh, boo ñëwee ba ca ca fin bi ci se rendre compte que effectivement. Euh, la nga doon séntu amoo ko mais yow sa bopp kon di nga xam ne euh, la nga yoroon moo baaxut même si ñeneen ñi xamul loolu ñoom dañuy jàpp rek am na feneen fu soo xam ne fekk demeewul noonu moo tax toujours am la réalité du terrain dafa leen mën a permettre nga jël les bonnes décisions. alors ñu wax nag ci cent mille barils euh, pétrole bi nga xam te ne daanaka mbébét bi euh, jot nañ ko atteindre anna ban impact la mën a am ci kaw askan wi. waaw loolu je pense que xibaar bu baax la nekk xibaar bu neex aussi ci ci ci réew mi. mais comme niñ koy waxee rek c' pas parce que tey tey déclaré nañ ne am nga cent mille bari rek suba suba askan du ko yëpp waaw ndànk nak ngay def euh, li ci ëpp solo d' abord mooy ne ñëpp li partenaire Sénégal yëpp dañu xam ne Sénégal kat léegi am na ay ay ay ay ay ay ressources supplémentaires maanaam ay koppar yu yees yu dooleeku si la mu yoroon te yooyu mu ne koppar yu woor euh, dina tax boo soxlaa ay koppar ci bitim réew mu gën laa yomb wante aussi euh, yenn politique développement yi nga bëgg yëpp soo ko euh, xam nga ne am nga ci ay coopérative xam ne nga cee compter pour mën koo financer waaw donc loolu je pense que euh, avantage bu loo ci jëm ci ay koppar euh, def ko ci réew mi askan wi forcément dañ ci seen bop ndax boo ci ne man kat koppar maa ngi ci xaar ay ay ay ay milliards yu bëri mën ko jël gën a tabaxaat ay bërëbu fajukaay gën a jëm ci recrutement ay médecins ak ay sages-femmes wala nga ne ma gën cee recrutement ay jàngalekat dañ cee defaraat yoon yi euh, et cetera gis ne kon nit ki fu mu nekk tamit da ci gis boppam te loolu mooy am solo lépp lu nit ñu bokk daal euh, ko ci foofu day tax euh, ñëpp ci njiitu réew mi voilà noonu la mm-hmm. jot naa dalal sax PCA bu Woodside mu mel ni am na juróom milliard ci dollar goo xamante ne jot nañ ko ci dugal ci boobee jamono nag ñu gis ni taux de chômage bi mu ngi gën a yokk fii ci Sénégal. Euh, waaw xam nga investissement moom euh, dooru ko soxla ndax moom mooy tax euh, activités yi gën a développé moo def aussi nit ñi gën a xarañ ci li ñuy def investissement la bu ñu defoon ñoom pour effectivement mën a commencer exploiter voilà seeni pétrole te gis na ne aussi wala gaz bi tamit ngi avancé bu baax chômage bi nag soo chômage bi augmenté da ngay gis ne boo ko da nga ko comparé ak nga gis ne dafa gën a effectivement parce que boo xoolee ci premier trimestre yëpp daanaka wala sax presque euh, dernier semestre bu deux mille vingt trois ba ci premier trimestre deux mille euh, vingt quatre yëpp dañu gis ne dëkk bi vraiment jaxasoo woon na lool xel yi dalut coow lu bari sax jóg na fii euh, ba bàyyi bakkan des ci trouble yooyu nag bu amee souvent investisseurs yi duñu sawar lool ci in dugal seen koppar. comme mu nekk investisseurs yu nekk ci biir réew mi comme mu nekk investisseur bi ci biir réew yooyu noonu souvent bu amee rek dañuy préféré euh, xaw a seen tànk tuuti wala boo waroon joxe fukk xëy na nga def ñaar wala ñett wala bu waree bari juróom ndax da nga comme wóorul daal naa bàyyi ba gis di sama xel mhm. voilà loolu aussi bokk na ci waaw alors ñu ngi ciy wax nag lu ëpp 4400 ci ay emploi direct indirect yu ñu euh, généré ndax mën nañ ci am yaakaar Euh, waaw loolu information bu baax na parce que lépp loo xamante ni moom dafay créer emploi euh, réew mi ñi jiite réew mi loolu la ñuy war te ci la ñu war a yëngu suba ngoon waaye aussi ñi nga xamante ni ñoo nekk ci réew mi te bëgg xëy euh, loolu xibaar bu baax lay doon ci ñoom. te li ci ëpp solo sax li ci a neex mooy ne emploi yu bëri yoo xam day doon yoo xamante ni vraiment emploi yu baax leen donc maanaam liggéey yu baax yoo xamante ni nit ki mën na cee préparer avenir am préparer avenir njabootam. voilà léegi nag comme dangay wax mbirum pétrole walla mbirum gaz euh, da gis ne war nga mën a gën a investir aussi ci mbirum euh, l'école ak l'université pour ñu gën ci ma tàggat ndaw yi ci lépp lu jëm ci mbirum koom-koomu pétrole ak gaz loolu dina tax aussi ba euh, lu ci ëpp loo xamante ni mu ngi yëngu ci mbir moomu doomu réew war nañ ko seen bokk te loolu aussi du doon lu naataange ci réew alors yaa ngi wax wàllum création d'emploi te nga fekkee yow ci boppam salon di des startups Afritech euh, lu yàggul dara ci euh, jeudi bi ki ko initié di euh, njiitu MEDES Manick Diop nan nga jàngite tey lu nu mel mu mel nii dafay gën a dugal loxo mi tamit ci li jëm ci emploi wu ndaw ñi rawatina ndaw yi nga xamante ni daanaka fi mu toll nii bëri nañu nekk ci chômage. waa jërëjëf bala may commencer répondre sax damay dellu njukkeel d'abord président Manick Diop. parce que di nga xamal ne vraiment euh, li ma def yombul euh, te lu baax la ci askan wi rawatina ci ndaw yi te nag def ko benn yoon ñaar yoon parce que bi yoon moo doon juróom-ñaareelu édition bi cela veut dire que voilà euh, mi ngi ci te sax na ci d'autant plus que traversé nañ sax période de crise bu métti crise sanitaire crise économique mais taxul ba léegi mu ngi jàpp fi mu jàpp loolu moo lay wan ne kon li muy am na ci conviction te lool dafa baax parce que ndaw yi dajaloo. am seen i projet eh, présenté ko ñu leen eh, ëpp expérience ci mbirum entrepreneuriat ak mbirum eh, l'université ak yooyu jàngat projet yi ba tànn ci yeneen ne ah ñii kat jàpp nañu mooy projet yi ci gën a baax mën na leen jàppale ma doxale ñu ñu départ ñu am ñu départ ñeneen ñi aussi xëy na dañ leen may visibilité tax ñeneen ñi gis leen ba mën leen a jàppale loolu vraiment lu ñu salué la te lu mel noonu Euh, bokk na toujours ci loo xamante bi dina participer ci ci ci ci ci emploi des jeunes. Mm-hmm. parce que ku ci am sa projet boo ko bu loo amee finance euh, déjà yow yaa yaa yaa commencé nga xëy. mais aussi bu xamee commencé dox tuuti da nga soxla ay main d'œuvre supplémentaire da nga mën a jëlaat et cetera moo tax ñu jàpp ne euh, Sénégal ay mbañu jóp yu bëri dañ fa war a am loolu dana doon xibaar bu baax ci ndaw mm-hmm. ndax vraiment fi mu taxaw jàpp nañ ne képp foo xamante ni doomu réew mi nga yàlla may la nga nga am expérience bu bëri ci mbirum entrepreneuriat euh, war ngaa moo taxawee noonu ndax da nga jël say moyen jël sa sa sa expérience jël sa expertise jël sa réseau yëpp euh, mettre ko à la disposition des jeunes pour ñoom tamit ñu mën cee génn comme ñu ci génnee loolu aussi vraiment élan de jeune et générosité la boo xam ne si ñun ñëpp war nañu ko alors en tant qu'économiste tey lan la ñu war a vraiment def ngir mën a sukkali nag koom-koomu réewu Sénégal. Euh, waaw so comme comme moom boo ko boo suqali da ngay da ngay xool rek ci da xool jaarukaay bu bi gën normal xamante ni bii vraiment mooy voie bi nga xam ne je pense que boo ko jëlee war na la mën a permettre nga génn mu gën a gaawee. Hmm. waaw nga ñu jàpp déjà ne amul loo xamante ni bii annoncé maanaam solution la ci lépp amul fenn parce que même yi a développé ci àdduna bi sax ku ci nekk da am sa trajet far ba xamante ni moom dafa la da da moom sa benn yoonu bopp mais terewul. mais gis na ne déjà li nga war a gën a mettre l'accent mooy li ñuy wax une croissance endogène maanaam croissance boo xamante ni bu dee réew mi yaa ngi ci liggéey di ci di ci génne ay koom-koom koom-koom yooyu dafa war a njëriñ d'abord waa réew mi. Mm-hmm. war ba tax na euh, secteur yi nga xamante ni bii jàpp nañ ne bu doxee rek réew mi dox. Euh, mooy yi nga xamante ni d'abord li ñuy wax secteur primaire mu nekk càmm gi mbay mi napp gi. loolu moom bu doxee bu baax rek ala kulli al fépp Sénégal yi nekk da ci gis boppam moom la tubaab bi wax sax da nga ko ressentir au niveau du panier de la ménagère voilà léegi dëgg ci loolu nga jéem a xool lépp li nga xam ne yaa ngi koy bay ak di ko napp noo ko mën a transformer sur place nga koy nga d'abord fexe ba mu doy moom moo bari lool nga gàññ xëy na mu doy carrément idéal la rek mais bu ne gàññ rek déjà euh, dana dana wàññi lu bari ba pare nga xool ni tamit koy mën a defee di ko transformer sur place boo waxee transformation la sa xel dafa dem ci industrialisation voilà parce que boo même boo ne da nga jaay jaay sax bitim réew euh, boo transformé doo ko yóbbu moo jël ci le maximum possible ci parce que booy création de chaîne de valeur dafa am solo aussi ci mbirum ci ci koom ci ci ci hmm. bu dent ñaar fukk la ci bu début ba fin bi euh, boo transformé xëy na ci réew bi lu mat fukk ak juróom ba fukk ak juróom-benn mën na fay des mais bu dente da nga géej jël noonu ni ko bàyyi rek yóbbu ko xëy na ñett ba ñeent mooy des ci réew mi. te boo mën a fexe ba fukk ak nangam def ci réew mi mu ëpp fuuf ñett wala ñett def ci réew mi am solo terewul nag boo waxee développement moom daanaka euh, lépp la raw rawatina mbirum infrastructure parce que boo mun a wax développement moom te génn ci infrastructure nit ñi foofu ñu déplacé wu d'un point A à un point B boo bayee war nga ko mën a trans transporter boo transporter war nga ko mën war nga mën a déplacé wu aussi moo tax le fait ngay defar ay yoon pour nit ñi dem ak dikk dafa baax lool voilà réew mu dëkk mu mel ni Ndakaaru par exemple nga xam ne at mu jot daanaka téeméer ak juróom-ñetti milliards lañu ñàkk ci koom-koomu réew mi ngir embouteillage kon xam nga ne foofu boo fa investir davantage ci mobilité urbaine daanaka da ngay eh, gën a eh, soxali koom-koom Ndakaaru boole koom-koom Ndakaaru da nga koom-koomu réew mi waaw donc réew daal loolu la c'est un tout li mm-hmm. dara mënu dem bàyyi morom mais am foo xam ne rek mën koy jaarale pour ëmpal mbir mi alors ñu jeexalee rek ci message bi ngay lancé gouvernement bi waaw message bi ma leen lancé mooy ne déjà sénégalais yi euh, nangul dañu war war na leen mën a nangul d'abord li nga xam ne mooy seen projet bi nga xam ne moom la war a tey parce que daf ci at yi ñu génn dafa am projet bi tudd nekkoon bu tudd PSE euh, bi ñu demee ba élection ñëw sénégalais yi voteel euh, président Bassirou Diomaye loolu mooy nekkoon projet bi fi nekkoon wala plan kii bi fi nekkoon. politique économique bi ñu fi doon taxawal kooku kaddu na léegi beneen bu bees mooy ñëw taxaw noonu aussi il faut ñu koo jàngat euh, gën a bañ a daal confondre vitesse et prestation donc fu ci nekk nag nga xool ñi nga xam ne jàpp nga ne seen xel màcc na ci nga nga nga nga nga leen foofu soo ko defee daal gëm naa ne war ngaa war ngaa mën a am li nga bëgg voilà. très bien en tout cas Mor Gassama jërëjëf may fàttali rek ni sa xel dafa màcc lépp lu jëm ci wàllum koom-koom ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. Ajde u zampru.